le marketing état bi du soxla jël di fay parce que dañuy nek ci buy wax développement personnel ñaata méw lañuy importer ngi créer ay insuffisance rénale maladie cardiovasculaire ay AVC nit ñi di diabète parce que méw mi ñuy jëli dañ koy engraisser ak l'huile de palme te fi ci à fii ci Dagana fii ci Daara am na meew moo xam ne dañ koy obligé betti ndax bu ñu ko rattee ba nuppi du ñu am fenn fu ñu ko transformé mhm. réew mi daa bëri ay ndaw ñu mhm. xëy def nii parce que amuñu lu ñu liggéey xam nga ñi nekkoon ca àll ba lan lañ den jàppee 300000 la ñuy am bu nawet bi jeexee bu seen sàq jere bu ñu amee lu ñu dund 300000 daa mën a dindal nit cinq jours ci ñetti weer yu ñu liggéey li ci des yëpp dañuy toog faste xànc ak morom ma duñ ko def léegi léeg nga gis ku dëkk boori Touba mbaa Njaareem cokk-cokkal fasam dem ma yóbbu ñaari seqam ak li desoon ci dugub ci kër gi pour mën ko dundee si l'État avait une vision danaan ñi may indil production agricole bàyyi leen samay ndaw li ko dalee Ndar ba Guinée Conakry dafa am lu traversé lu tudd fleuve Sénégal ñu def culture maraîchère am na seen daw ndaw su tudd soxna Ndey Mari Ayda Jegéen nee état bi mën nañ jël ban defar ci ay centre de conservation yu mag comme ay set mhm. li ñuy bay ci pomme de terre li ñuy bay ci soble ñu mën ko dundé trois cent soixante cinq du yàqu mhm. waye ñi bay soble produit international bi dafa ñëw di leen concurrencer Sénégal buñu ñu port bi ñetti weer ñun ñëpp ñu dé parce que lepp lu ñuy dundee dañ koy importer ce pays est malade et cette maladie c'est pas à Néné Fatoumata Ndiaye de le régler parce que Abdoulaye Wade avait dit ñett ma ma Abdoulaye Wade avait dit ñet aux accords de partenariat économique ñaata nit ñoo fi de di et tout Ameublement te produit une ñuy du qualité artisanat bi mu souffrir les jeunes souffrent parce que amuñu lu ñu def ñun ñoo nekk ci dernière maillon chaîne bi. si, Sidi su ma la ngay wax